mais Modou Anta maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar Babacar. sant bu baax a man ci combat bi laa Anta ak Diène Kaïré. waaw combat bu naqaree analyse nag. Uh-huh. waaw parce que boo dee xool ñoom ñaar. boo dee xool Modou jiitu. mais nag Diène liggéey na loo xamante bi nii jaadu na pour mu bëreeg moom. parce que tëddul di nelaw ban jox ko Modou Anta. boo dee xool premier combat am da koy ñàkk moom Diène Kairé mi ngi nii taxaw bu fekkee ne day découragé wu. diggante ak bu Fass. jeex na ko Iba Mar Diop. ma gën a xam li nga may laaj. ba mu dellu si waatee dañ xale du jum du juum juumaat dafa dellu si waat am ndam dellu si waat daan jéggi siraat dellu si waat daan Youssou Ndour et tant d'autres ba bëree eh, ki nga xam mooy Pape mbaay am ci defet ba mu fa jógee nag ñu ne doomi mbër bala ñoo xam ne mbër la dëgg-dëgg day dugg ci lu mu mënut. Ah, ah. jox ko kooña Koña wallaay ca Ibama. ñëpp ne papa ji da koy dugal. da koy sacrifier parce que mënoo jóge ci defet ku toll ni Pambaay jël Koña ku gën a tàng. boobu defe naa wul leader ñamanteel. xale yëpp ko fi bàyyi woon. mu jël ko daan ko. bu ma dee limal day bëri. ba fi mu mujj. mais boo dee xool nag am na combat. boo xamante bi nii. client bu mu dul yàkkale fenn. combat de. parce que ki mu am dama jëli ñoom Bada Joonu. ñu wax ma ci moom lu bëree bëri. waaw na mbër la boo xamante bi nii li ku nekk ci ginnaaw mbër bu mbër la boo xamante bi nii ma nga dëkk ba cees bu daanee cees lay ñibbi bu daanoo cees lay ñibbi combat la boo xam ne ku ci xeeb sa morom. def nga ma ca wax nee na mënta toog waaw ku mënta toog de taxaw dong nga lay arrangé kii mooy Pape sar bu Pikine defe naa kii moom ak waa Pikine <laughs> defe naa mooy Pikine sax laa mën a wax maa ngi lay am nga jàmm waaw maa bu baax. mel ni yéen ngi jëm ci zone zone de vérité bi. waaw instant yi nii moom dama jël licence promoteur bi tegee ko nele hmm. waaw instant yi nii ñu toll nii. Hmm. waaw damay jël licence bi ma yor. comme waa de DKR damay jël licence promoteur bi. teg ko nele ba suma frère bi pare si bésam. lu la jaral loolu. mooy mooy ji. kii su ma yaay moom ma ko dénk su ma la gisatee ngay topp benn mbër bu dul ëmma seen lépp looy ut ci àdduna yàlla bu la ko yàlla may. sa waaw sama yaay bu ma jur. su ma la gisee ngay topp benn mbër bu dul ëmma seen lépp looy ut yàlla bu la ko yàlla may. loolu diis na de Pape. waaw. kon tey daal bés bii moom maanaam fooyewu ngeen ko. non duñ ko fooyee duñ ko fooyee tamit suñu frère la rek suñu ñaari frère ñooy bëree dégg nga lak suñu frère la ëmma suñu frère la ñu def ko si fair play xam nga di ñaan yàlla suñu yàlla may ñu ndam. mais tey boo gisee waa géejawaay nii ak ay ah, lak sécurité la àndal. lii du la jaaxal yow. non ñii sumay frère lañu. ñoom dund ñoom màcc. ñii ñëpp samay frère lañu waaye lii day waaw dara lii c'est normal c'est normal ñun. Bayla bu Seras moo fi nekk ak Aliou Seras ak man ak kii yaa ngi may dégg sa waaw ñun samay rakk yi ñoo ñëw ñoom Aliou Seras Bayla xam nga waa Pikine ñu ngi fële toog taxaw na le fii wax dëgg yàlla du am benn coow du ñu laal oto kenn xam nga ñu ñaan daal jàmm daal. mais fayu xalaatoo lak def ko. waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi xaar daal ba bés ba. du fayu de. du fayu jamais. déedwaay. billaahi wallaahi watallaahi billaahi wallaahi watallaahi. Lac de Guiers am na combat. billaahi wal kitaabi laa wax. waaw. cey loolu. am na combat. nar naa mit dund. kii day géejawaay la jógee. ëmm moom combat ëmm. wallaahi ëmm moom combat. billaahi billaahi wallaahi watalaay billaahi wallaahi taalaay. ëmm moo am combat. billaahi balaa ngaa xam loolu nag ba 4 avril incha allah rabi. non fi mu toll nii yéen dafa mel ni yéenay ñaan sens. yéenay ñaan revanche non danga may déglu rek. yéen dafa mel ni yéen yéen yéen a ñu daan. Mhm. billaahi nañu déglu rek ñun ñoo nekk seen kaw. waaw lañ ñaan ba bés ba. waaw ba bés ba déggoo li ma wax ni lu ñuy ut ñun ñoo leen ko gën a bëgg. ñoom lu ñuy ut ñoom lu ñuy ut ñun ñoo ko gën a soxla ñun ñoo ko gën a bëgg. balaa ngaa xam loolu nag bala 4 avril incha allah rabbi. waaw day rafetlu daa mel dañoo décidé de. dañu eh luñ moom la ñuy jël si. waxoon naa la ko bu yàgg yéen lan ngeen moom suñu alal la ñuy jël si. non billaay moom leen dara Abdoulahat ji làmb <laughs> Pape Sarr ak Dundu xëccoo ba nar naa metti Lac de Guiers de Eumeu cëy bii komba ah cëy loolu kaay ngi nii ma toog ak ñoom jéen a ngi nii copain maa ngi lay bëggee yow maa lay bëggee bu wér a wér la Salif la foo dëkk bu jéen kayre asek naa cité asek naa bu jéen kayre di wax yow daa mel bu baax a bu baax Modou Anta du am dërëm tiitoo ci mu Anta ñoo ko gën a dëkk Thiès kaw sara faa leen dëkk mais du am dërëm yow kaw sara nga dëkk barke arxuraan mais du am dërëm non non Kawsara fa leen cosaanoo boog. mais moom mi fay dund nag. moom mu fay dund moo tax mu ne la du am dara. Hmm. billaahi kon nga xam Modou pare nañ ko bu yàgg. Modou Anta day xaar lii Saali wallaahi wur na arxuraanul karim dama am doom sama bakkanu doom laay waat day xaar combat bi. loolu wala dafa waat ci bakkanu doomam. mbër maa ngi lay bëgg. delloo ziar bu wér xaaf la. waaw. mu mel ni sa copain nga àndal. waaw moom la ñu àndal tey ñëw ci face à face bi waaw ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm di ñaan yàlla defal ñu ndam ci combat bi waaw day am ndam sax sa waay mooy loolu. ay contact ak moom. <laughs> waaw liggéey bu a est-ce que yëg nga ci moom doole. kii toujours pare la tudd. xaarul combat pour entraîner day entraîner chaque jour xale la nekk ci yoonam. Modou Anta tiitalul. non non du Modou Anta ci kaw lañ jëm. problème bi du Modou Anta déedéet. Ah. loolu man daan Modou Anta. waaw. waaw. yow man. asek naa. waaw. am na solo copain. waaw ñu ngi ziar. yow sa problème. Modou Anta moo ñu ak yéen ñi journaliste yi man dafa am lu ma bëggoon jàllale rek. Babacar yow yaa Babacar ah. mais yéen la moo tax mënoo leen def innovation comme yéen ay Modou Mbaye ay xam nga yéen journaliste yi ngeen innové. lan mooy maanaam di seet si yu mel ni mbër yu. mbër mbër yu mel nii seeti. non seet si bi dafa doy do ñun. gisuñu da nga cee da nga cee gisagul sa bopp. waaw dafa yaatuwul quoi non pas gisuñ bo yaatuwul yaatu yooyu noonu. par rapport ak ni ngeen di liggéey ak mbër yu mag yi. mbër yu mag yi amatoon lu ñuy prouver instant bii nii. Ah, ñii ñooy relève. sur le terrain. merci ñii ñooy relève. ci ñoom jéen ak leen di seet mais seet yooyu noonu. yokk ko daal waaw mu gën a bëri quoi comme ni ngeen di liggéey ak mbër yu mag yeeg ñooñu noonu. nangul nañ la lool ñun ñëpp lañ fi nekk. waaw noon la demee nag euh, pour wàllum combat wu Modou Anta bi moom fanaa nee na biti. ndax sa moom waaw xam nañ ne moo ñu gën a bëgg làmb ji instant bii waaw du ñaan yàlla ñu teewoo ko le 4 avril incha allah rek. loolu leer na ñun moom conseil ku nu ko jox dañ koy jël dinañ yokk bu baax a baax di gën a xuus ci gars ndax nag nit maanaam gis ñëpp ko am maa ngi lay bëggee copain jaajëf siyaar nañ Babacar non ñun amuñu benn problème man moo amu benn problème waaw man damay tëdd nelaw sama xel ba mu dalee du tax tey avant ñuy avant ñuy téye signature di ko signé la sama xel daal. am ñu ngi buntu 2STV ba tey rek du mën a ñàkk jéen defe naa lii moom xanaa dina doon ci moom problème de la topp ñëpp ci say nawle say morom ñoom daal leen seen gis-gis mooy daan mu doon te kii moom xam naa kenn raw ko Salif. <laughs> waaw Sali sama rakk la moom kii sama rakk la mën naa ne waaw sama deret la ñii ñoo bokkoon classe ñii ñëpp ñoo toog ñoo doon toog même banc. même banc waaw di jàngee école Xaadimu Rasuul. xam nga di yow noo doon def noo meloon ci njàng mi. waaw si njàng ñoom laaj leen ñoom ñëpp maa leen ëppoon niveau de. <laughs> gaa yaa ngi toog. non ñoom ñëpp maa leen ëppoon niveau mais xam nga rek làmb ndeysaan. <laughs> deret mooy ñu tooñ français. amoon naa ci niveau mat amoon naa ci sama samay leçon dama koy jàng. ñii ñëpp si man lañ daan wéeru. <laughs> ban classe nga bàyyee. <laughs> waaw ñun ñu bàyyee cinquième nag. cinquième ah. waaw cinquième fee naa. est que li mu wax leer na. waa dëgg maa moom ñoo doon toog moom. aayoon na anglais aayoon na français. waaw fa yam nag. <laughs> daawul daw jàng mbaadu. non non non moom da teg si yoon moom. waaw da ñëw moom. am na solo mais Diène sa digganteeg mu Anta addina bi yëpp. wala boog bëri na monde ay amateur yoo xam dañ ne combat bu metti nga a bër parce que ki ngay bëreel maanaam buñ ko xoolee ci côté palmarès daf la xaw a jiitu ci làmb lu xaw a yaatu loolu lu mu def ci yow. waaw avant tout maa ngi nuyu ñëpp tamit Babacar di rafetlu lii nga def tamit do xam nga moom munoon na waaw xam nga di rafetlu lii di la nuyu di la ñaanal jàmm di rafetlu seen liggéey yéen xam nga presse sportive yëpp waaw moo daan de champion la ndaanaan la. man yaa dama yaa grévé bëreeg moom sax wax naa ko avant lii nee ma yàgg la topp mooy da nga di ndaanaan def say preuve ma jël la bëgg bëreeg yow waaw te combat boo xam ne combat la jaral la te lépp loo xamante ne incha allah ñu ngi si pour mu may ñu ndam ñun ñu ngi si di góorgóorlu te am ci yaakaar bu wér nag waaw incha allah. yow leer na ne maanaam daal yaa ngi am yaakaar ne di nga am ndam mais ki ngay bëreel dafa dëgër dafa metti mën a xeex mën a bëri. waaw yow dëgg la mais Babacar xam nga ne làmb ji ku fi bëgg dara. di xalaat lu yomb weeboo nga dem toog. te moo daan ta ndaanaan la champion la yàlla mooy woon dam mais bu fekkee ne damay tëdd di xalaat moo daan ta mën naa ko daan wala mënu ma ko daan bu hmm. <laughs> yeboo ma bàyyi dem defi leneen. Hmm. bu soobee yàlla lenn moo nekk sama bopp ba rek moom daan ko continuer sama yoon. parce que làmb àdduna sax amul yomb dëkk bi ni mu mel nii rek dara yomb fi rawatina xam nga góor yàlla toll sa digg doole di am looy sóoraale non kon ñu xooli leneen hmm. waaw. sa gars yi day moom ñoom liñ gis ñoom nee nañ ñoom daan rek. ah non ñii xam nañ ma ñii moom man ñii xam nga tey sax la ñuy soog a aalu nii. Hmm. mais ñoom xam nga duñ débat man ak ñoom benn wax laa leen di wax li ma waral li si des mooy liggéey li si des ñu teg ko si loxo yàlla mais ñu mais ñoom xam nañ ma parce que maa ngi ñoom depuis école depuis mbapat ànd nañ fu ne xam nañ kuy jënd bu baax ñun maintenant amoon na fu tudd Babylone. booy xam nañ Babylone lañ ko daan wooyee yéen ñaar boo leen xuloo day jàpp ba ci biir rek ba wax rek tëj tant kenn fëggul di yuux wala dara gars yi duñ duggaate yow mas nga faa dugg waaye yow dugg fa duggati fa alxuloo nga fay doomu mbër ci koñ ah. da ngay wone ne doomu mbër laa ci biir koñ bi chaque minute nga dóore daal di dóore ñu lay dóor mu ni combat bi lool lay loolu lay wundu Babylone lay doon parce que week lo lay doon waaw Babylone lay doon te loolu tax mu nar a neex hmm. buñ sa gars yi dañu waroon taxaw ci buntu stade bi ñëpp buñ téyee jañax ñu bu ngeen demee Babylone yéen ñaar kan mooy yooxu yaag mu doon ta yooxu moom jamonoy xale xam naa <laughs> waaw du yooxu mais mën na onko wala mu kuy onk <laughs> kan moo nar moom <laughs> génte ah, wàccel masque bi tuuti ma ni rëy de ah yow tamit Babacar ñun ñun bu ñu loolu bu ñu mënul loolu ñu dem toog bu mu toll nii yàlla yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm may ko may ma jàmm may ko jàmm ñaan corona bi jeex ba mbër yëpp sëgg bëre parce que mbër amul lu dul làmb tamit waaw jàpp nga daal dina onku daal ah dina